ci ay parti politique ñi nga xam sax ñoo koy jiite ñoom lii mooy lu njëkk ñu daal di bokk ci présidentielle la ci noone daal ñoom la ñu bëgg rek mooy euh, wutal li nga xam ne kat mooy baatu askan wi waaye gis sa ne kat doole ba mu am mooy élection présidentielle bi gis sa ne kat ñu bëree bëri daal daañu compétir mu lu njëkk loo xam ne seen loxo da ciy dugg waaye tam ñu bëree bëri gis na ne kat seen ëllëg moom ci nii lañ ko war a waajalee ñu gis na tamit élection présidentielle bi nga xam ne kat moom la ñuy waajal naam ñu bëree bëri ci ay parti yi nga xam ne yàggoon nañ fi lool ñoom dañoo faatu wala sax dañoo nërmeelu kon ñu bëree bëri gaar nanuñ cee bokk ñi nga xam ne kat ñu ay njiitu parti ñoom lu njëkk ñu daal di yaa ah, fexe ba daal di yaa ah, lijjanti ci naka la ñuy yaa ah, buuxee ba daal di dugg kon nag gis nañ ne dellu ginnaaw bi nga xam ne njiitu réew mi dellu na ko ginnaaw di Macky Sall te nga mooy njiitu majorité bi bu loolee kat lañ ci mën a jàpp itamit gis nañ ne moom njiitu réew mi dafa daal di tànn ki nga xam mooy Amadou Ba nekk imaam li jëwriñ ji waaye itam lépp mën nañ cee xaar ne ñu bëree bëri kat ñi ngi daal di rot ci nànk seeni loxo bëgg wan ne kat moom moom la ñu àndal waaye ci al calcul la ñu nekk waaye ci ku jéggi nag moom gis nañ ne phénomène bii nga xam ne kat moo ci am ñu bëree bëri waxaguñ dara waaye pat pataaral lañ maye. kon tamit apparence bi nga xam ne mooy électoral bi am na ko ñu bëree bëri yaakaar ne kat naxa saxan dang kese la kon ñu gis ne ay njiitu parti ci kujje gii ñeel wàllum présidentiel bi ñoom ña ngay wutali fa nga xam ne kat fa la gën a naate kon ñu bëree bëri yaakaar ne li nga xam ne kat mooy présidentiel bi soxalu leen naam sax am na ñoo xam ne ña nga teew ci assemblée national wala sax ci collectivité yi waaye njiitu parti yu bëri bii mooy bu njëkk ñuy daal di bokk ci présidentiel bi le kon tamit ñu baree bëri ñi ngi daal bëgg a jaay li nga xam ni amul ñu bëree bëri tamit gëmuñ sax la ñuy wax ñu bëri la leen neex daal mooy ñu xam leen nangit mën a négocier bu fekkee ne deuxième tour am na ay parti politique yoo xam ne kat daanaka mbirum business la seen bopp rek tax ñu nekk fi kon ñu gis ne parti yu bëree bëri ci li nga xam ne kon moo wàllum transhumance loolu moo leen itteel kon premier résultat yi nga xam ne moo naratu ko ci présidentielle bi day tax nag ñu xam fa mbir mi féete ñii nag moom bëgg rek daal di wéeru ci ki nga xam ne moo gagné daal di gouverner ak moom ba ci atum 2029